waaw man Ngoné Ovens Ndiaye laa tudd euh, man maay présidente commission information communication bu dialogue en humanité de Dakar donc euh, dialogue en humanité de Dakar un euh, forum pour xam nous ñu ngi ko initié Lyon ñu ngi ko initié Lyon mu am ay doomu Sénégal yu fa demoon l'actuelle coordinatrice bi nga xam ne participé woon na ak le le doyen Alioune Sall docteur Aliou Seye nga xamné ne fa la nekk moom fa la basé wu di doomu yara da di né li kat ma gis Lyon war nañ ko mëna indi Sénégal d'autant plus que ñun dañu am parc de Anne té les dialogues en humanité de Lyon ñu koy organiser parc Tête d'Or de Lyon donc sous l'arbre à palabre mu doon lo xamné wax deug yalla dañu né nan ko nan ko organiser pour que vraiment ndax lo bo gisé lu baax da nga roy concept la bo xamné ne war na adapté wu en Afrique en Afrique donc ñu né comme lool la nañ ko indi Sénégal lolo, indi dialogue en humanité yi Sénégal bi moy 6 sixième édition euh, dialogue en humanité de Dakar euh, dialogue yi nak dañ koy organiser nak sous forme de thématique donc euh, thème principal bi mooy xoddeeku balaa ngay la clé. mu doon euh, thème tem tem boo xam ne thème d'actualité ndax fi ñu toll nii ci ci ci àddina bi kenn umpulewul ne àddina du jaxasoo na guerre yaa ngi fi ñu jóge ci Covid donc euh, mu doon loo xam ne képp ku fagaruwul rek boo moytuwul dootoo exister ñun nag ñu ne comme dañuy organiser dialogue te dialogue looloo ko tax a jóg donc dañuy fexe ba jaloog yooyu ñu wax ci loo xam ne dañuy tax ñu préparer wu ba lenn loo xam ne day bette duñu du daanu suñu kaw bu si kaw loolu si ñaata mbaam ngeen toll mu nekk nii C'est un membre membres membre membre yi c'est nañ de membre parce que édition déjà Tamba organisé parce que euh, euh, euh, dialogue dañu ko décentraliser wa Thiès dañuy organiser wa Tamba di organiser waa Ziguinchor di organiser kon comme defaguñu évaluation pour cette année parce que après dialogue yi lañ koy def ndax am organiser ci année bi donc mënaguma la wax tay ji ñaata moy ki waye jàppal ne dal dialogue yi moom mu ngi euh, euh, sur le plan national mu ngi élargir su ngeen da ngeen def euh, euh, région bu nekk di organiser est-ce que xalaat ngeen bés ngeen def loo xam ne que région yëpp a c'est ci benn place ngeen def seen kii bi. waaw xam nga même dialogue Dakar yi dafay regrouper euh, dialogue du bëri ah waa Bénin pas seulement Sénégal au niveau du Sénégal Bénin dañuy participer France dañuy participer. Euh, peut-être que contexte bi moo tax ñu venus ñëwuñu ren mais y a eu euh, des dialogues où on a reçu les des béninois des brésiliens ak ñeneen ak ak donc loolu li ñuy def la déjà ci dialogue yi waa Tamba par exemple def nañ délégation Nous avons récemment mois passé bi la organiser dialogue Nous avons ñëw nañu ak délégation Nous avons fait na ñëw

dinañ wax ci lu ne ba mu des ci nit te dialogue yi dafa jël lettre humain teg ko au cœur du dispositif muy loo xam ne balaa ngaa def leneen di gérer économie di gérer environnement foog naa nit ngay njëkk a gérer ba pare da ngay fexe nit ñi nite pour loolu yëpp mën a ñëw donc dialogue yi amul kii moo ëpp diplôme amul kii jaaykatu gerte la ku nekk sa xalaat da nga koy wax langue yi sax amuñu ci problème barrage de langue parce que bu fekkee ne déggoo wolof

à travers la direction des eaux et forêts bi nga xamné ne fa laa nekk ñoom it nañ ci bu baaxa baaxa baax té baax te d'ailleurs ñoo ñu jox espace bi ñu koy defee waaw loolu daal xam nañ ko te yaakaar nañ ne ñeneen ñi aussi dinañ ci gën a jàpp parce que loo xam ne la li may wax rek société bi la fait des phénomènes de societé lañu ñu waxtaanee pour que nit ñi seen dëkkin yomb ñu mën a nekk ci jàmm parce que bu ñu waxtaanul bu ñu jalogewul maanaam jàmm du mën a am parce que Senghor daan na ko wax nanu jaloge bu ñu jalogee rek xam nga peut-être ñu comprendre ante ñu lever équivoque yu bëri ba nga xam ne dinañ mën a dëkk dëkk ci ci espace bu bi ñu bi ñu nekk waaw message bi may lancé sénégalais yi mooy que ne dialogue en amul xaaj ak ku nekk mën nga ci bokk ku nekk sa quartier mën nga ko fa organiser ndax pour société bi la ku nekk daal quartier ba nga nekk ndax loolu lañu lañu la ñu def dañoo décentraliser euh, quartier bu nekk war naa mën a wax ci ay problème am teg ay thématique xool nan lañ koy waxtaanee ba ñu mën a dund ci espace bi ci jam ak salam donc damay lancer message communi surtout les maires que ñu porter les dialogues en humanité wàcc ko ci askan bi parce que foog na lolu moy rôle commune daño war di wàcc ay ay ay ay ay ay activités yu melni pour que au moins ñu xam lan moy soxla askan wi pour ñu mëna jappalé askan wi ba ñu mëna a dëkk ci jam ci commune ci ci espace yi ñu nek